sama xarit Alaaji Njaay Loo Njaay maa ngi lay nuyu di la ziyaar di la sargal di la ñaanal nga yàgg fi lool lool lool lool lool te wér naa la démb nag yaa ngi woon ci beneen waa Alaaji ok jërëjëf euh, yàlla noonu lay doxale dëgg la maa ngi lay siyaare bu baax di la ñaanal jàmm ndeysaan démb àddina bépp ma woo moo tax suñ ñaari léeg-léeg boobu borom kër war na tëdd ba yàgg sax mun naaj yi ubbi buntam ci la njabootam xam boroom kër lan la may yi ñi ma sopp yëpp yëpp ma doon woo tubaarkàlla dëgg yàlla ab jeeg moom bu dul wor te mm-hmm. man waañ te waañub dépasse dëgg loo ko jox moo ko moom dëgg la maa ngi lay siyaar di la ñaanal bu baax ñaan it ki ma fi nekkaloon eh, di Abdou Assis ab ànd noonu dong la eh, yàlla doo nga man saa fu ne ko foo ko neex nekk fa dëgg la kenn mënu ko dul saa borom waaye la maa ngi lay ndokkeel baax la ba ñuy ubbee yëpp maa ngi koy dégg ba fin baag yëpp nañu yàlla defal jàmm defi nu xéewal di ñaanal sa waajur wu jigéen ni ma koy faral di wax rek xol lu fa jëkk tëfa te njàmbat loo fekk dindi loo defoon fii noo ko sanc maa ngi yow lu riir riir ak lu làmb gis jax jax jax. nu na woon. dëgg la tànk di langaante mun a yegg suuf. nu cogoon ne ca kaw te boobu amul indirect. kon mu nee ba ñëpp xaj ci. ay nu gaaf. jigéen ngi kër goo fanaan yàlla def dépasse. waaye su ma doon jigéen fu ma fanaan dépasse duma ma jafe. yàlla na sax. macha allah dàkk di siyaare bu baax li ma ko faral borom kër gi. yàlla na ko yàlla defal jàmm. yokk xéewalam amiin amiin eh, ak waajuram yëpp yi ko doon dimbali di ko jàppale ak rakkam ak koo xam ne ci tubaar kàlla daa sax ci moom rek tubaar kàlla moom itam di maara ak mboolam yi mu fal ñëpp te yàquñu luñ ko dara di saa nag sama sang sëriñ Sidim Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla na fanam gudd bala isa ku ragal doo seddu ku mu neex ne sama jabar dàq ci jigéen ñi dëgg na fanam gudd te mu sudwar ji aw fan ak rakkam yi yëpp amiin wëlbaa di jaale nag mm-hmm. eh, yaama saw ajaratu yaama ndeysaan bu Kawlax ndeysaan rakk ma faatu démb la ma woon ni ma nuyul ma sama digga dama sax boo ko téléphoné boo teelee dem jox ma ko yaa ma def naa ko xamul dégg turam aw lool fii ci diyaa gi waaye ma nga jëm siin Saalum maa ngi koy jaal bu baax di ko jaal Kawlax gépp di jaal nag it tubaarkàlla Xadi Juuf sama doom ju nekk Colobane ndeysaan moom itam kumba magam moo wàññi ko ca Kër Masaar tey lañ koy ñaan sarax di ko saraxal di gërëm nag sama doom Lamine <laughs> lu doom yi bari bari am na ku la ci gënal Mouhamad Lamine am na it sa xarit dëgg la Lamine Samba moom mm. eh, li olof yaay di lépp dëgg la doom la doom lañu waaye ndaw la guddi la ku dajul Lamine yaakaar ni sa morom a daj am nga loolu naqari dëgg la waaye bul kekk bul reyee wallaay wallaay macha allah lampe coupé rek te courant amul dëgg te mu di lëndëm waaye am nañu fooyu te mënuñu wallaay loolu la cat sama doom yàlla na sut waajuram aw fan amin amin man xamoon naa baayam bu wër ndeysaan yàlla na ko yàlla defal jàmm amin alaaji euh, te gunge ko ba mu sori amin amin yaa euh, te nag njaboot gi bu ko ci kentane dëgg te lu mel mi ngi leen di dimbali yàlla na ko yàlla jàppale. amiin <laughs> amiin am na cër mën naa joxe ab cër. ndeysaan joxe cër taxut a ñàkk cër. déedéet ngeen di joxante ay cër du wàññi dara. dëgg la laaj te télévision ak rajo yi. Mm. làmb rek la day mujj tas. dëgg la. ana la gën a fukk la ñu ñaar. dëgg boo ko limee ñi fi des te matuñu ñaar. wallaay wallaay ku dem fii nga leen di baax. dëgg la nan rafetal. te kenn ko doon sa saabu nawle. dëgg la bu dëddee fóotal te weer. parce que yéen passé bu jógee sol. ndeysaan yal na la yàlla jàppale. amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin allah ji yow. di gërëm nag durin ñoom. yaa ngi fi ñun ñëpp moo démb. la ak susufin. dëgg la loolu la nekk nit di jëriñ. dëgg la boo gisul laaj ko ba xam fu mu ne. dëgg la yal leen yàlla jàppale ñoom bu baax a baax a baax te bañ leen a tëral te ñu kon ne seenum liggéey yàlla fa leen cat amin amin yaa rabbal alamin waaye tamit xam nga ni mbégte la ci ñun comme ni nga koy waxee alxames euh, àllarba bu jot ci waxtu wi ñuy feggoo ak suñu doom suñu xarit ah Mouhamad Lamine yaay jàmbur maa ngi lay sargal de non maa ngi bëgg maa ngi <laughs> ziare bu wér papay jàmbur maa ngi ziare bu wér xam am na nu muy demee sax day doon. balu ping pong. la maanaam wax ma ma wax la. dëgg la waaye li ci des yàlla xam na ko. dëgg la am na ku baax. nday ndeysaan dama koy ñaanal fu fu mu toll. ndeysaan sëriñ Baara bi. ndeysaan muy Luc Nicolaï day wax ni yàlla na yàlla fay li ne ci xol yi. kon yàlla yàlla fay li ne ci xol yi. Mhm. maa ngi leen di nuyu. maa ngi leen di ziare maa ngi leen di bége maa ngi bége képp ko xam ni jamono ji yaa ngi seetaan euh, télévision Futurs Médias rawatina émission boo xam bu am solo bi nga xam ne moom la ñu wax wareef lu waaye bëgg a xam ci sa àq ak sa yelleef bu dégloo wareef xam ko dëgg la mës naa wax ni mhm. mësuma fay toog dégg mhm. ajaa déggeen wax problème am wala sama papa Ndiaye loo njaay wax problème am dëgg la lu soxal askan wi rek ngeen di wax kon yal na leen yàlla jàppale amin amin yaa bala yal na leen yàlla jàppale amin Mohamed maa ngi kontaan lool ci amin Mohamed Lamine mbégte gu rëy la ñuy am xam nga ni di toog ak yow incha allah li El wax ci yëpp yëpp am na lu des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 mi ngi ànd ba tey ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ci émission bi di wareef ci télévision Futur Média ziar kilifa aada yi ñaan buur bi nga xam ne lu fi sotti rek ci coobareem la moom yaa rabbi yal ñu nañu mottali lépp ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam te lépp lum ñu ci defal rek yal nañ ko muurloo ci barke alquran al karim ñu ngi àndaat ak yéen ba tey di nemmeeku malaat yi ba tax ñuy dugg ci hôpitaux yi dugg ci dispensaires yi dugg ci case de santé poste de santé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 meen na waaw moom moo gaañu moom moo gaañu dëj ba nekk ca Diourbel ndeysaan mm, ñu ngi koy jàlle waaw waaw waaw waaw Adja Fat Cissé Mbaye moom euh, ñu ngi koy jàlle Adja Ndeye Mbub bu baax a baax ndax tamit moom suñu yaay la suñu référence la suñu lépp la ñu ngi koy sargal bu baax a baax ndey suñu soxna te yàqaluñu déedéet bi ko boo di takk dëgg la maag boo la woon ak Alaaji Góor a Sekk lalu wurus dëgg la waaye am na lu mu soppi ci noonu am na lu mu jëf ci noonu. dëgg la mooy ndey mbuub. dëgg la li mu doon doon giwal kenn xamul lu mu doon. dëgg la dëgg la am na yar am na teggin. lool sedd na lool lool barkal la moo tax <laughs> la sedd Lamine. wallaay nañ di góorgóorlu. dëgg dëgg la ay comme way ñu wax ko. dëgg la dëgg la ndeysaan ku am way ñu wax ko wallaay wallaay ndeysaan <coughs> macha allah kon sama yaay ndey mbuub njaal baa ngi nii. Euh, mu mel nag euh, seen émission bi di wareef ay thème la Mouhamed Lamine di ba léegi ñu yëkkati thème boo xam ne nag dañ koy jëmale euh, ci miina daan doole yi ndax tamit nag baatu mbindaan nee naa la boobu dàq nañ ko fi ndax lii nasaraan di wax dafa péjoratif mhm. ku koy wax dafay mel ni xeebeel mii na daan doole lu tax jàpp nañ sax ne képp koo xam ne yaa ngi jóge sa kër di liggéey mii na daan doole nga mhm. waaye ñii nga xam ne ñoom ñoo ñuy wuuti ci kër yi mhm. war a mën a nekk doom ci ñun war a mën a nekk mag ci ñun war a mën a nekk rakk ci ñun ñoo ñooñu su fekkente ne nekk lépp tegu woon na ci yoon rek problème du am mii na daan doole bu wala ka nga xam ne moo ko embauché koo ci wéet rek mu yekk ba keneen ka lu day ne xeme mm-hmm. kon problème am na luy problème mm-hmm. problème warul woon am sax ndax jigéen ak jigéen ku ci nekk war nga xam lan lan mooy sa wareef ci diggante jigéen ak jigéen ndax yëg-yëg la waaye problème am na problème yooyu nag euh, léeg-léeg mu jóge ci jigéen bi nga xamante ne moo ne ci kër gi léeg mu juge ci xale yi léeg mu jóge ci borom kër ga léeg mu jóge ci miina daan doole bi nga xam ne dafa ñëw ànd ak jikkoom ñu war a toog nag waxtaan ubbi leen téléphone yi ci numéro yi ngeen xam ne miin ngeen ko di 88 628 22 22 sooy wootee ci réew mi 88 628 22 22 sooy wootee bitim réew nga def 00221 33 841 22 99 00221 33 841 22 99 xanaa rek di ñaan yàlla door ak bisimilah rahmaani rahim delluwaat di ñaanaat buur bi yeggaleeg alhamdulilah bil alamin di ñaan yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke alquranul karim waaye balaa ñuy dem fenn Mouhamed Lamine nañ dem seetaan revue de presse dellu si léegi léegi ci kàttanu yàlla ak Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf banlieue bu ndakaaru lu fa waay am tey bañ mu yàqule boy nga jëlee ko fa ndax tey ji ci ngoon dana tàng dana metti li ko waral yéenekaay yépp xëy ci dellu si waat pap andil ma xët u njëkk observateur journal bi nañu ñoo ñi parti démocratique sénégalais di libéraux yi tey ji dañu bëgg amal ak manifester foofee ca banlieue bu ndakaaru waaye manifester ga préfet bu Pikine daf leen koo tere li waral yéenekaay bi gis ne banlieue boobee ku ca intérêt ca la ñu daw deuxième waaye nag la cee ñuul moo di ndawi parti bi ñoo ne euh, euh, dana ñu taxaw defante koog ñi leen koy tere ñu bëgg dana ñu manifester ñu bañ dinañu manifester Bara Gaye bu UJTL dëggal wax ja ci xët u njëkku Walfadjri nee na qu'il pleuve ou qu'il neige muy taw wala muy ngelaw ba suuf si jëlaañoo du tee ñu wecc ci mbedd yi manifester ngi ne kay bi di Walfadjri nañu tey ma leeral leen li tax gars yi nguur gi bëgguñu ñoo ñi parti démocratique sénégalais yi manifester benn moo xam nañu ne ca banlieue bu Ndakaaru boobee ngir fitna jolli fa dafa yomb te bu fa xasee ba jolli mënuñu koo fexe ba lijjanti ko loolee tax ñuy bañ kon ñu manifester ca boobu nga xamante ne ji moo di eh, banlieue ba manifester ga kañ ca jublu ak lañ ca jublu moo di jàppale Karim Wade avocat Karim Wade moom xëy na ci journal bi nga xamante ne ji moo di laas kenn ci avocat Karim Wade yi ñu naan ko maître Pierre Olivier Sur euh, euh, muy xamle ne cour répression enrichissement illicite taxawal gi jaarul ci yoon c'est illégal Aliou Ndao ma ko jiite mu ne nañu ko falee dara moo moo ci baaxul moom Aliou sax ba tey avocat tubaab bi mi ngi wax ne na la ko war moo dina tekki ndombal tànkam ndax daanaka daanaka daanaka lañ naan diffamation di ay sos moom la defal Karim Wade ba ka Karim Wade moom avocat bi ne eh, fa mu ko gisee na ma ko gisee xam le ne ne jàmbaar la tey li ko yitteel mooy li tege ci kaw mu góorgóorlu ba mu sori ko ndax euh, bu nekkee ci jafe-jafe ma ngay muñ ma ngay gore bu génne ci jafe-jafe noonee lay wéyee ñu fekk ko ba tey moom maître sûr ci yéen kay bi observateur muy sàkku ci njiital ku répression enrichissement illicite di Aliou Ndao mu tekki ndombal tànkam direct info euh, xëyee ko moom ci xët awu njëkk moom avocat bi ndax nee na lu aju ci wàllu euh, Karim Wade ak ni nga xamante ne ji noonu la ñu doxal doxaleeg moom ka ko jàppale du cour répression enrichissement illicite dara dara dara baaxu ci tribunal fantôme moom la ko jàppee jàppaleen leen xët u njëkk la Soleil ñu dem xooli wala investissement direct euh, yi juge bitim réew di ñëw ci biir réew mi le Soleil nañu jàpp leen ci atum 2012 gi dugal nañu ci Sénégal lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaari milliards 467 milliards yoo xam ne dugal nañ ko ci Sénégal wala investissement direct la ñu jóge fi nga xamante ne ji moom mooy bitim réew ñi investir ci réew mi yéenekaay bi di Sud Quotidien nañu topp gi ñu topp mbiyu bien ak yi bëgg sellal bëgg leeral tax na investisseurs yi seen xel dal na ngir ñu ñemee kon investir Sénégal ñi fi xas investir ba noppi ñoo nga ca defante Le Quotidien dikk ci enquête dikk ci libération dikk ci moo di lan euh, diggante ñi yor wàllu télécommunication yi journal bii di Le Quotidien nañu yëf yi am na concurrence bu ci am ndax bu ñu seetloo Sudatel maanaam muy Expresso dafa ñëw def ko ba noppi di menacer Orange ngir yàqal ko enquête dina synthèse defal ñu ab lu aju ci wàllu sondage moo di lan wàllu réseau yi na nañu jàpp Sonatel moom moo lu aju ci wàllu téléphone portable mobile Sonatel a ko amee Tigo Sonal bi nañu ma ngay daanu Expresso na teg na loxo ci wàllu internet bi Libération xëy ko moom it dëggal ñëw ci woyle wàll ni ko yeneen journal yi waxee la may wax mooy wàllu tàggat yaram stade yéene kay Pape jox ma ko na nale ñu xool ko diggante Chelsea ak Tottenham tey ji la 18 a kaay bi xëy ci Demba Ba mi nga xamante ne ji football Ligue des champions tey lay leer ndax danañ ca yegg ñoom waa Chelsea am déet tous les sports moom xëy dikk ci leneen El Hadj Ousseynou Diouf mi ñu ne dafa signé ci benn club bu nekk ci Guinée Conakry yéen a kaay bi nañu amul euh, euh, buzz dañ ci jublu maanaam def dara ngir nit ñi euh, topp ca di wax waaye El Hadj Diouf du jugee Angleterre dem di football fi nga xam ne moom moo di ci Guinée Conakry loolee amul li am mi ngi ci sunu lambu Tapha Tine borom takk ci ripp ma ngay dànkaafu ma ngay tëkk kooku ma ngay avertir ki di Balla Gaye 2 la mu njëkkee moo di xamal ne ko ne man bal man Tapha Tine damay mboot damay padd damay yenu damay dóor waaye nag li ci grand place dalul am xel Sanga Ndiaye sëriñu gisaanekat bi seetkat bi nee na Balla gay 2 dafay daan Tapha Tine ni ci grand place ba suba ak jàmm kon euh, Mohamed Ndiaye am mbégte fatabaakalla macha allah ànd ak yéen ci revue de presse bi laaj yow gis naa ni revue de presse lu la soxal la loo ciy commentaire. ah du ndax li si des waaye man du ma lu tax nga bëgg revue de presse. waaw maanaam euh, bu awee yoon. Hmm. soirée Sénégal de fois la mu indil bu alu ak El Hadj Mansour Mbaye ñoom. Hmm. ak Adama Diakhaté. Hmm. ak Moustapha Ndiaye. Ah. regarde sur le Sénégal d'autrefois waaw ah, préparé yoon dëgg soirée la histoire la ndax histoire mun te weesu di fàttali li nga xamuloon ngir su ëllëgee nga di ko taatan la ca njëriñ nga jël ko bu dee ab safaan nga di ko moytu moo tax mu saf ma waaye am na ñu loo xam du ma ci dugg ndax man boo doon politique it damay doon jaboot jaaxaan dama bëgg ñaan yàlla ku fi ne nga doon sama nit tukaay di nga fegal sa morom jël te am na lu war politique si waaye am na lu warul géwal géwal defara ko war ah. li ma ciy teg mooy rek. ku dul saa borom xamoo luy xew ëllëg. Ah, ah. ku dul saa borom. Ah. xamoo liy xew ëllëg. te ñi xam ñi xew ëllëg it duñ ko wax. Mm. moo tax mu saf ma dama ko naa teg di ko déglu oh, ba mu jeex ko Lamine gis nga yëpp. non fi xam nga li mu wax nii. waaw euh, revue de c'est la presse lue et commentée. waaw. Mm. am na ci ñoo xamante ne xam nga lan la ñuy xaar ci yow. Mm. yaa sama ndigaay. sama xarit. parce que parce que ni nga koy ràbbee la. xam nga mënoon nga ko am neneen noo xamante ni noonu nga koy waxee maanaam du saf nit ñi soo gisee nit ñi xale yi sax wax sama nijaay sama xarit maanaam xale bii macha allah yal na ko yàlla lafal cat Mohamed non yal na ko yàlla lafal cat billaahi parce que am na ñoo xamante ni <laughs> dañ koy yàkkamti ndeysaan ndeysaan parce que ni mu koy defee dafa maanaam eh, ci da koy teg ci riim parce que ku alaaji maam eh, Ibrahima Ndiaye maam yaxi laalu nekk sa baay nii ngay mën a mel nag waaw ah, ah, ah, te nag riim bi wolof bi maanaam riim bi non il est il est il est xanaa xamoo ma wax la ko tey nag benn doomu aadama moo tax ma def nii ci revue de presse muy moom ndeysaan ndeysaan rafet na xam nga léegi ñu Lamine muy ubbee moom mi hmm? eh, dafa bari ñoo xam ni Euh, bu ñu doon samay noonu sax saf saf nañ ko ndax li may ubbee. dama am doom ju baax joo xam ne roqee siise Eh, maa ngi koy siyaare baax Saloum ak maamam ak ma madame Touré dañ mu ni saa bu buñ dee ubbi ni déggeen di ubbee eh, xel suñu yaram day daw eh, dafa neex te aw yoon te yaru xam fi mu ne su ma sikkan ba mel nii dénkoom matt la mu ñu lalaala ceeb lal dina ko ump ndax teraanga bu juutoo waxaale wàññi lu am bu kersa amee danoo jëkk am lu nu fasante te boobu siiwaguñu fii muy kolli rek soppante ba nu egsi fii moo tax néexul ba neexul. waaye bu ci faa jeexitam des te waañ waat bu ñu yàkkamti mu jaar ñëw. ndeysaan jërëjëf yaay yow sama kilifa nga li may wax xam nga dama ko yëg ndeysaan alaaji dafa baax waaye xam ngeen ni waxtu wi tamit euh, dafa am rubrique bu am solo boo xam ne ñëw na ci wareef Mouhamad Lamine. Hmm. boo xam ne xam naa lu la itteel la. Hmm. ndax rubrique feen. Eh. <laughs> bagage su neen la hmm. noo wareef ci jëm boppam mooy ay bagage nañu ànd dem seetaan rubrique fem Mado moo dem defal ñu ko ñu xool lan la ñu indil après nag commenté fem mem waaw fem mem fem mem li ñëppay wër nañ dem seetaan Mado fan la génnee tey. na wut sa saalañ saalañ bu néegi ak sa keeseñ keeseñ xale wutal sa saalañ saalañ xale bi ndax dafa xew na nga wut sa saalañ saalañ bu ne bi ak sa keseñ keseñ xale bi wutal sa saalañ saalañ xale bi dafa xew saa saalañ saalañ salaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu Déguène Chimère ak sama nijaay Ndiaye Lo di wax ne tey nag rubrique femme bii laa leen indil kii ku ko xool xam ne sëru dënk la ci jamono yu yàgg yi moom la ñëpp daan jël di ko sàngoo kuy sëyi moom lañ lay muur kuy ngénte moom lañ lay euh, euh, muur aussi euh, di leen wax ne kii moom drap de lit la bu ànd ak euh, njëgënaayam njëgënaayam ngi nii. leen wax nag tey rubrique femme tey bii laa leen indil di nuyu sama xarit sama yaay ma ci Genève nga xam ne moom yu baax yëpp moo ma ko jàngal di nuyu nag sama xarit kooku sama xarit la mën naa ne sama doom sax la ci man muy Mado sama xarit boo xam ne euh, fu ma toll rek mi ngi may seet di xool ci yi may yëngu ndax xam na ne man chaque jour mu indi ay feem yu bees. jërëjëf kon euh, mbokku téléspectateurs yi alaaji rubrique feem a ngi nii. dafa mel ni feem tey ñuy remercier bu baax a baax Ndeye Naar di ko sargal di remercier bu baax a baax madoo ak madame Fall mi nekk fii ci restaurant TFM ak mbokkam mi ñoom maam jaar ak ñoom Astoog ñëpp ak samay doom Kolle waaye lii nga xam ne sëru dënk ji démb la ñu indi tey ci feem indi ko tey mu nekk ay couvre-lit yu mag ànd ak ay feem nga koy suur say sa xataan ak say bagage ba mu baax lii loo ciy wax. waaw xam nga démb la nelaw awoon ba yandoor tey kenn nelawatul. lu tax. càngaay yee jotul te moo tax ñu indiwaat lii. ñett moo daan am barke ci yim wane. Mm. day naar wax na dëgg yëbagul ndeyam. Mm-hmm. ñett moo daan am. dëgg la. boo masaa di wëlbatikuwaat ñu di la muur nga war a sëyi. Mm. war faa seeyi. Mm. kii lañ lay muur. am na lu mu laan dikk bu la muuree ba pare xëy doo gis. day di sa yaram aw ñaq di génn si biir yaram. dëgg la ndax juróom-ñaar fukki wañu koy ràbb. dëgg la. soro bi boo ko tamit war naa mee nekk vingt centimètres. cib lóngóor yaatoo dëgg la boole ko nag mu doon ab sër mm. moo daan sàng bu jëkk nitug yàlla dëgg la moo daan sàng gërmi dëgg la moo daan sàng lingéer dëgg la moo daan sàng faris dëgg la moo daan sàng koy bañ dëgg moo daan sàng sax koo dañ laay am ci yaakaar may la jébbale la sàng la ko yii moo doon démb moo tax nelaw bari woon dëgg la lu ñu dugal nag ci biir mm. muy loolu lu ñuy wax yandoor mm. nga di ko somp te du ànd ak sawara mm. di ko def ci dóom muy cuuraay mm. moom la ma daan def dëgg la tubaarkàlla dëgg la moo tax bu njëkk góor daawul limité des paasam mm. poosam da daan widdi dëgg la tey góor ne maxuñu prix poosam dëgg la ndax du yaandoor nget gu du neex dëgg la kon ndey naar bu indee démb cosaan indi seeru rabal waaw ak seeru dënk ñu ko seeru rabal ak seeru dënk waaw xoolal kenn li rab waaye amul bokkuñu dëgg la seeru dënk góor pur ku dëgër nga koy sàng soro rabal ràbb la nga tas ko séri yi wëññi ànd ndey naar nag dafa doon ndeyam dëgg la ndax yaayam yii la may xool yu baax yi <laughs> waa gis nga nii dëgg la yu baax yi lii dama la wax nii la ah? bu Lamine Samba wàccee ah? lii bu Lamine wàccee suur ko ba mu baax suur ko lal ko ko beneen bi nga sàng ko lal ko waaw ndox sukk ni ko sang bi de am na dara naa bul yeggale. lambal poos bi waaw bi lu la neex jël <laughs> tamit loo wax ci couvre lii. ñàkk yu mel nii. Ah. moo tax góor ñu bari ci saal bi la ñuy fanaan. Ah. ñàkk yi ferme. Ah. boo ñëwee fekk lal bi fees de lekki sawi xale nañ ma baal. dëgg la déedéet wax ko. jaxasoo. dëgg la néeg boo fa duggee yow ku góor gi sax macha allah tubaar fa kàllakaar bëgg a a daw. dëgg la yu mel nii dañ koo war a roy macha allah tubaar fa kàllakaar. dëgg wax la nag yaay de. góor ñu bari ci saal yi la ñuy fanaan léegi. ñàkk ferme bu ma waxati li am naa ko rek. non c'est am naa sama jëkkër takk na ma. waaw takk na ma jeex na dootuma defati kaay ma wax la ñaar nag. Hmm. gis nga bakkan yii. Ah. jàmm la bëgg. te am na ci ay góor yoo yaay booy kaay ma wax la ñaar de. waaw xoolal gis nga góor. ay dëgg neex a neex. sama papa rek ni mu aaloo. dëgg la sàkkatuma la ñun ñi nga xamante ni peut-être moom moo ñu meññ. est-ce que comprendre muy demee noo xamante ne nii jigéen mën na koo takk di ko yóbbu. dëgg la maanaam di ko yóbbu. dëgg nañ ma baal daal ci wax ji daal di ko yóbbu tëddil génnil demal liggéeyi bul dem fi lu mu dégg wax la lu mu déggul wax la fu mu jëm yóbbu la fu mu demul yóbbu la parce que xam nga lan la yaay bakkan bii moo bëgg ay feem la day naa daal man nag day ah. euh, naa daal ah. félicité naa ko dañu mel nii moom nañ koy wanee rek ci waree <laughs> man na gis ngeen nag ah, jigéen ah te su bés day tombé chaque mercredi ah yaay kaay ma wax la ñaar nag de yaay man sama ñaar ya nekk ca kër ga wallahi nii la ñuy def ala accu lañu duñ bàyyi ñaa ko def erreur la man na gis ngeen nag man man moom euh, xam naa li may wér su ma wàccee. Eh. su ma fekkul 37. njëganaay ci lal ba. Eh. Eh, def naa dina ko rëb. waa njëganaay day bëri. <laughs> moom man moom. Euh, day jógoo jógu fu ma toog du ma ko am. waa loolu xam ne daanaka boo ni nii tànk mën ngaa waaye loo ci gis yow gisoo ci jàmm. man ak xet gu neex ka gisoo ci. jàmm. yandoor laa ci gis. <laughs> yaay yaay picc waxkat bal de moo baax ci gémmiñ gi. bàyyi bàyyi leen ma. kon mbégte la ñu am ci rubrique euh, femme gis ngeen ko euh, macha allah waaye comme alxames allah ji suba férié la nga xam ne daanaka wareef xam naa ni ne du am moo tax rubrique bi nga xamante ne ne ko waroon nañ ko teg euh, suba muy rubrique baaxu maam dañ ko indi tey ci biir wareef nañu ànd dem seeti rubrique femme ah ba pare seetaan rubrique bi nga xam ne mooy rubrique baaxu maam ndax suba tamit dañ koy jagleel suñu mbokk catholique yi. nañu ànd seetaan seetaan te ñëw. Euh, na kon Lansana dinañ dellu si waat xam naa si si kanam ci rubrique baaxu maam fa la macha allah ànd ci ak soxna Mati Dia moom tamit euh, moo ñu koy defal waaye alaaji balaa Mouhamed Lamine di dem dañuy dellu si ci tam bi fan lañu ñu toll woon balaa nga fiy jóge ma wax la démb yan paquet la ñu daaj. waaw fi ñu toll daal mooy nañ jël patron teg fee jël xeebaate dàq ko mu tukki te dootuñu bisi diggante bu mu am yabel dugg. du may patron boobu baat am na lu ko tax a jóg di ko supérieur di nga ko yëlif di ko ko wan mooy tax baat bi heure bu ñu ko jiitalee rek ka nga nekk liggéeyam ak yow dootu neex ndax dir yaa boo fi gis nag ci biir lay jëkkee woon ñëw ci as njegamaar ñëw ci jeeg sog a mat ki ko fekk ci doom la da waxtu su ne la kii ñëw di liggéey si daa fekk si ndeyam yow mi jóg di witub liggéey fexeel ba am yor jikkoy doom diggam ak waajuram bu ñu ko defee ñaari wareef lay doon te jàmm rek di am ndax kii dem bàyyi sa doom mm. say doom ki ko yor te bëgguñu mu mar bëgguñu mu xiif mm. defar kër gi defar néeg yi gis nga lii ñuy wane sàng sama doom ju baax ji naar di ko wane mm. li cëpp lépp ñi daan seen doole koy def balaa seen patron ñëw nag kuy xëyu fajar di wàcc minuit mbaa di wàcc onze heures tëroo defub lal kër te loo defarul buus lépp ñooma buñ ci àndee na yar ak teggin nag it nañ leen oof nuñ leen di oofe quelqu'un sa juróom-ñeenti weer nga matu di raam mënatoo dox ñu cas la teg la ci taabal ñëpp dagaase wu saa borom ne ko nag maa lay arbité lu ma nekk def ci yow tey waaye di nga mucc ak jàmm soo jëlee mitir woowee ak yërmaande ji indi ko ki ñëw te fa nga aw la kee aw da nga koy oofaat muy sa doom booy lekk bokk leen bu mu raf lee lépp mi ngi aju nag ci kii fi liggéey nag te mm. yàlla tax te ànd ak yar ak teggin te am lu mu jëlee ci kër gi indi ko ci biir kër gi foofu nag euh, Mouhamed Lamine foofu laa lay joxe ndax alaaji li mu wax baamtuwaat ko léegi daa am solo ndax dafa ne mu ànd ak yar ak teggin mm-hmm. démb mu am soxna yoo xamante ne dañ fi woote kenn ki expliqué ñu ne mii na daan dooleem moo taal këram taal këru yaayam mm-hmm. taal këram incendie mm-hmm. taal këru yaayam nee na te kooku moom ak yaayam moo doon fanaan ñu def ko doom ci kër gi. Mm-hmm. ndekete yoo man nee naa ne dafa ne wér na sax ma ne ko kooku wérul. Mm-hmm. ndax koo xamante ne dem na ca garage fekk fu bagage ne mu sax saxi taal. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñëwaat euh, ñu toogaat taal mu gi bi mu toogee ñu ñu mu nekkaat ci kër gi ba xëy suba avoué ne moo taal. te nee na ba mu taalee ne ne daf ko joxoon euh, daf ko mayoon xaw ma lan piisu wax xaw ma nangu ko xaw ma ay yu kenn xamul moo tax ma ne la nit ki tamit. mën nga fekk kenn koo xam ne doppooral na ca fa mu jóge mhm. ba nga xamante ne ne que caaro yi amoon na ci yoon xamuloo ko mu ñëw dugg sa kër bindu fekk na doo xam lan moo dugg sa kër benn mhm. ndax nit mëtul nit dafa lëndëm mhm. loolu su fekkente ne ndaw si oo na ko fi témb baax na tamit ñuy yëkkati nii na daan doole yi ay yi ñuy def tooxi doonu ñu wax ko beneen bi keneen tamit euh, ne moom mi na daan doole bi daf ci am kenn koo xamante ne dafa toj patukaane bi mu tojee potukaani au lieu mu jël potu kaani bi yëpp signalé ne toj na daal di ko sànni dafa jël beneen pot bu mel noonu dajale potu kaani baag teson teson ya tojitu tojitu yëpp jaxasefaat ci kaani ba yëpp da defaat ko ci pot bu bees dugalaat ko ci frigidaire nee na moom waa këram yëpp xaw nañ dee nga gis keneen koo xamante ne ne que bi muy rend compte ne mii na daan doole bi moo doon jaxase kanam trop tard na ndax ki nga xam ne ne moo lay toggal su fekkente ne jug na di dem dëkkam di indi ay liggéey di def ci toggal bi yow dafa ay ñoo xamante ne suñu duggee sa kër dafa mel ne fitna moo fay juddu. Hmm. di dëdaat le di dëdaat le ndekete place am la bëggoon. mu am ci ñeneen ñoo xam ne caay gi nga xamante ne ne que moom la ñuy lal dañuy dugg si bëgg sa place te ñu ko amee baax na. Hmm. mu am tamit démb ñu wax ko fi yeneen mi na daan doole yoo xam ne suñ ñëwee sa ay doom yu góor ñoom ñoo leen di jàngal mbiru jigéen ak góor mm. da ngay dem ba nga xam ne yow sa doom tàmm mi na daan doole bi yu mu koy def ba nga xam ne soo ko xoolee dootu ko xam mm. wala boog su demee fekk na yàq na ko complètement mm. da ngay ciy gis doom bu góor boo ne boo xamante ne daf lay défier yow mi yaay ji ndax mi na daan doole bi gis nañ fi kër yoo xamante ne paa bu jug taxaw ne jabaram su mi na daan doole bi waree génn yow yaay génn mm-hmm. loolu tamit sëpp la la ko bind ma ngi ca ko li ñuy wax la ko bët voilà donc yooyu yëpp nag am ci kër yi tax na mu noon ay paquet yoo xam ne dajji nañ ko fi démb mm. su ko defee ñu xuus xam na ñaari côté yëpp mm. ku ci wax mm. am na loo war a wax waaye am na foo xam ne war nañ fa mën a daje ci jikko ci mët bismillah Mouhamad Lamine da nga résumé débat bi yaag suma papa maanaam da ngeen da ngeen campé débat bi ba léegi li ci des peut-être mooy ñi ci des war ko jël ñi ci des mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo tax ñun ñu ne fi muy téléspectateurs yi kenn ku ci nekk nag façon ba nga ca am mm. waaye loolu yëpp man pour man li ko indi mooy mm. maanaam koo romb rek jël mm. xam nga am na ñoo xamante ni mënuñoo ñàkk jànq ba saa yu ñu soxlaa comme ni nga ko waxee mii na daan doole bu ñu taxawee ni seen balcon ko da ngay wut liggéey kaay <laughs> doo xam grain doo xam fàlleyam ñun bu njëkk yàlla ma yàlla baal te jégal ma daan naa seetlu sama maam daan na ma ko wax sama maam su mu saan am jànq da koy dugal loo ci suuf rollal yaa papa xamul lu mu ci jublu. nee na njëkteef du dugg ci suuf rollal <laughs> maanaam dinañ la def defloo ay feem yoo xamante ne nii dox loo la wax loo la ñaan la ndox togg loo la xool wan feem nga. Mm. parce que am na ñoo xamante ne saa yu duggee ci kër kër yokk. Mm. am na ñoo xam ne saa yu duggee ci kër kër wàññeeku dañuy xool gaz bi. am na ñoo xamante ne saa waaw am ñoo xam tam saa yu duggee ci kër kër ga day stagné. Mm. du dem du dikk. yooyu yëpp mag ñi dañ ko daan seetlu. léegi nag soo gisee lu tax loolu yëpp amul mooy facilité bi nga xamante ne nii jigéenu tey yi bëgg nañ ko yaay booy ba tax na ñoom nañu jànq tey mm. du ñu mën a téye kenn ndax seen jikko mm. ku ñu jot rek jël dugal ko ci kër gi mm. kon musiba day am parce que tey bu la miin daan doole fa yabee bay taal sa ay matériel ma ne bukki bu yabee gaynde ca doxin wala moom la ñuy wax moom ñàkk a seetlu gala ñàkk seetlu seetlu la ak bëgg lu yomb maanaam léegi nag moo tax xam naa loolu sax xalaat ngeen ko am na ci ñoo xamante ni tey ay kuréel la ñu def di fa teg mi na daan doole yooyu boo ñëwee soxla jànq mm. xam nañu ban carrière lañ lay jox xam la paquet ci kuréel yooyu ñëwal keroog tamit am na kenn ku fi téléphoné alaaji fekk na la fa. Hmm. ndekete kuréel yooyu ñuy teg ci mbedd mi. Hmm. benn góor ñëw taxaw. Hmm. dajale mii na daan doole bi. yëf bi ndekete promotion canapé ba foofu dafa am. su fekkente ne nekk nangu nga. góor bi. yegg ci yow nañ ma jéggal. ci la lay gën a gaaw a placé. keroog dafa benn femme boo xamante ne nee na keroog ba mu gaare ndaw si mu jël daf ko ni man tey su su ma su ma yàlla boolewuloon ak yow damay ñibbi xombal. ndax fii. bañ nañ ko ba nga xam ne su fekkente ne ne que nangu nga ah mu lay fanaanoo mu ne ma su fekkee ne nangu nga loolu soo xëyee daf lay placé ci ay patron yu baax waaye lu ko may di fi toog cent ans dix dimanche oto bu gaare ñu puus la te man loolu mu doon remarqué woon naa ko aussi léeg-léeg da ngay dem. ci fenn nga gis waa ji di la tànnal di la oo ay ñenn mais mm. léeg-léeg ci gis kenn koo xam ne day day day fudd rek ñëw sa oto mm. ah day fudd ñëw sa oto parce que bëgg na bëgg na bokk bëgg na ñu jël ko bëgg na bëgg na def mais duñ ko ci faale loolu mm. tamit euh, paquet bu ma la doon jox mais loolu loolu aussi tam c'est important xam nga boo gisee ma ne la carrière bu lay jox xam nga loolu nag aussi tam war ngeen ko toj xoolaat ko ndax Euh, maa ngi dégg fan yii yëpp débat bi nga xamante moom ngeen ciy def mm. kon maîtriser ngeen li nga xamante moom mooy sujet mais aussi tamit euh, am na ci yu bari yoo xamante ne nii ñàkk seetlu ba ca la xanaa xamoo am na ci ñoo xamante ni nii ñor nañu ñor boo xam ne balaa ñu lay bàyyi sa kër sax dinañ la yóbbu ci psychologue mm. xool la mm. danañ la yóbbu xool ndax yow am nga ay feebar wala amuloo feebar danañ la xool yow ban comportement nga yow am na ñoo xam ne balaa lay jël dañuy taal seen oto yóbbu yëpp dem ba sa kër waxtaan ak say waajur. Mm. bu jaree sax ñu jóge dëkk dëkk dem. Mm. parce que tey am na ci jànq yoo xamante ne nañ ko waxante dëgg nag. Mm, ñoo redressé kër yi nag. di ko paa bi waxee léegi nag. ñoo redressé kër yi. ceeb yu ceeb yu neex yi ñoom la. Euh, lijjanti ñoom la. am na ñoo xam ne ngay jox dépense. man yàlla ma yàlla baal ti jéggal ma sama benn grand grand frère bu ñuy wax ella Hadj Samba. billaahi yaay booy moo mayee jànqam. ñu bàyyi la ko ko mu mayee ko ci jumaa muur ko de man am na suma benn xarit boo xamante ne nii eh, eh, li may wax ni bugguma tudd turam mm-hmm. mais moom jànqa yaayam la takk mm-hmm. ba tey am na ak moom ay doom yu mag mm-hmm. parce que gis na ko bëgg ko mu nekk ak moom ci biir kër gi da ngay dem ba am ñoo xamante ne nii dootuñu leen wooyee sax mii na daan doole ci biir kër gi ndax dañuy bokk ci biir kër gi dañuy xam kër gi gën a maîtriser kër gi lépp loo xamante ne nii réer na ci kër gi xam nañ ko luñ denc kër kër gi xam nañ ko loolu yëpp chance la aussi tamit waaye seetlu la mm. seetlu bi daf ci am solo mais sénégalaise yàlla na ma yàlla baal ti jégal ma mm. yaay booy suñu jox soxla yii mm. ñoo bëgg lu yomb eh yow kaay fóotal ma lii yow demal ci armoire bi xoolal ma fa lii yow demal fii loolu muy indi problème yi ci kër gi nit ki balaa nga koy ubbil sa lépp yaay da ngay xool yaay ñun ñëwuñu rek paa bi wax na ko léegi tollu fii ñu toll nii dañu ramper li tubaab di wax ni c'est en forgeant que l'on devient forgeron jékki-jékki rek tey benn béréb rek nit ñëw rek nga ubbil ko sa lépp mm. yaatal ko sa lépp non mm. non non mm. da ngay seetlu petit à petit loisir façon nii ngay xool di xool di xool mais sénégalais ak ñoo bëgg lu yomb loolu moom moo tax lu ne di leen dal dañ ma baal nag ci wax dëgg la waaw xam nga daal dafa am yu daal euh, dëggan yett mën na ko indi waaye yent mën na koo bañ boroom kër bu mu xam miin daan dooleem jikkoom mm-hmm. na ko baag soxnaam mm-hmm. waaye nii nii nag fulla ju day ni mm-hmm. mu def waree fam muy benn soxnaam na alaaji fi nga fi nga njëkkee loolu am solo la waaw c'est très normal parce que dafa am ay góor tojal loolu tojal loolu bul dem waaw xam nga tax dama ni euh, ñin daan doole daal li wér wér yoonu borom kër niwu ca ndegam bëgg na jàmm ah, kay tojal loolu bul dem sama diggante ak Seexul Xadim sëñ Ablaat laa wax de min daan doon lenaa fenn sama kër du xam nu mu tudd far. jërëjëf man bokk na ci personnalité. soxna si sant ba. waaw kay mm. man. waaw kay lépp soxna see ko seere. waaw kay. mooy fay soxna si lay jox. taxawal foofu nag xam nga lu tax ma bëgguma nga xuus bëri na fi góor ñoo xamante ne ñoo jëndal portable mi na daan doole. waaw di leen SMS. Mm-hmm. di leen piis. mu ñu wàccee ñu yóbbu leen. wala su leen wàccee ñu yóbbu la suñ la yóbbuwul tamit jox la rendez-vous ci biti dafa am ay. xamante ne xam nga sànq dama la wax mu ngi juddoo ci kër fekk góor ñi ñoo koy jox la benn doole ci biir kër yaa ngi wax sànq am na miina daane doole yoo xamante ne waaw doo da non dañuy wax sax ne yaa wax léegi ne eh yow kii la gën ci kër gi boo bu naree génn nga génn kon am na lu tax doo loolu laa la bëgg wax gis nga la ci kër góor ñooy koy def demal waaw du du du góor yi ñoo koy def waaye du góor ah du góor de nangu woo baat boobu dégg naa góor yi góor bokkul dëgg la góor pire da am lu muy bañ dëgg la góor piir dafa am lu mu bëgg. ci këram góoru yu moo yor bëtub gileem ak loos wa mm. guddaay ba day xool garab gu ne ci ginnaaw lu mu ci war a cof. bëtub gileem ak loos wa <laughs> non alaaji loolu garaaw na. waaye góor piir dafa am lu am lu mu xewal ci këram. Mm. am lu mu bëgg ci këram am lu mu sopp ci këram. Mm. li mu bëgg ci këram mooy toujours ñaare kër gi aw aw yoon xam nga sax miin daan doole mën naa dem ba. lu doom am ci biir kër gi mu am ko ci kër gi mhm. ndax façon am ak jikkoom soxna dëggan gone bu la teral nga rus ko mhm. daan doole yoo xam ne dama ne ni wit si wu ñu liggéey mhm. déedéet dañuy wit si borom kër gi ah, borom kër gi wit miin daan doole. day wit sukk mi attiré. jërëjëf jërëjëf. sol seen niñ ko tàmmee léegi sol seen yu bon yooyu. Ah, di ah. fobee rek di fomp ak yooyu yooyu la ñu xewal ne góor ñi man dama ah, xam nga tam sama doom. dafa am loo xëy dama lay tur ñaare. ñaari paaj la. bii góor jee ko moom borom kër gi bii soxna see ko moom. min daan doole laa la ni bu ñu saraax ci biir kër gis waa kër gi. ni ñuy soloo ni ñuy waxee ni ñuy jëfee rafet bu dikkee te ab yar indaale ko te mu jële ko ca kër ga li mu indaale day jaxasoo xale yi ba kenn du leen xam jërëjëf su bëggee indi loo xam bokk ci ne kër gi nag waaw taxaw eh soxna si mun naa li amu fi soxna si waaw nga ni ko naam mu ne eh neel kii nay sol lu jot waaw kay nay ko waxi nit waaw kay na mel ni xale yi fi ne jërëjëf baat la jërëjëf àllaaji am déet jërëjëf waaye damaa tusu wax ne la nag ki ci biir kër gi di jigéen. tey Alaaji wax na lool mm. bu yilifee miin daan doole yi. Mm. yilif ki ne ci kër gi doonub surga. yilif xale yi miin daan doole du ko neex def. tel mm. ki nag la mañ nga daan def ci ndaw. dafa tusu ne la ki nga bokkal biir kër gi mag njëkk ñi nañ daan def. bu dee ngeen fa ne ci bii nag Lamine Samb bii Ndiaye Lo bii. bu jant fenkee dañuy jàpp xalwa dugg xalwa ba xam Lamine lan la yeewaale. ndax mën ngaa tëdd ànd ak jàmm. yeewu ànd ak yeneen. ma dañ daan listixaar di testé loolu amatul. amatul. boo demee nag fii ci liberté si ni ñuy def xale yi. nga war a xam ne yaa quelque chose. mooy teraanga. bu jiitoo waxaale. ki ngay jëfloo du bañ. canapé. ak mindaan suñu bëggee tampoo. canapé ba day jiitu. mindaan ma rus. luñ ko sant mu jëf ko. dégg nga yaay booy yaay booy xam nga man moom. Ah. thème yëpp da ngeen ko doon maîtriser. mais ah. tem bi moom ni ngeen ko ah. maîtriser. mooy eh, li li wala wax ne mbanaata xam la ca dégg ba moom miy ruur ba ca ban. ba ca am solo. parce que da nga ciy gis mais léegi danga wax leen loo xamante ne danga nga ni col yi ñuy sol ak li ñuy ménager. waaw. loolu. mais yaay booy yooyu yooyu da nga koy gis. waaw da ngay gis koo xamante nii mii na daan doole ci biir kër gi la. Mm. mais dina solo benn solo boo xamante yow boo ubbee buntu bi da ngay tëjaat. waaw mais ah, ko am na éducation bu ko permettre mu sol n'importe quoi mm. mais su ñëwee fekk artiste la ci kër. Mhm. war nga ko soo ñëwee fii. bu njëkkoon ñi doonoon mii daan doole. nekkatuñ ko léegi. waaw léegi ñëppay doon mii na daan doole. am na ci ñoo xamante ni sax ay élèves la ñuy doon. pour après pour ñu jënd seen fourniture. après dañuy dem dokki mii daan doole. am na ci ñoo xamante ni ñun ñuy toog di liggéey sax mii daan doole non mais xam nga. ah liggéey ci ñun ñii moom lañu. Mm. mais ni ñu ko tàmmee di gis ak li tax ñuy wax phénomène bi tax ñuy wax ñoo ah, ah, ah. ñooñee nga xamante ne nii ñi ci rax la am na ñu ci bokk ñoo xam ne waruñu ci woon bokk am na ci ñoo xam ne yaay nañu waxante dëgg papa mm. am na ci bu ñu ñëwee seen sa biir kër mm. ne wut liggéey nii ngay def yow foo jóge foo dëkk waaw am na ci sax ñoo xamante dañ koy mbubboo waaw moom laa moom laa lay wax am na ci ñoo xam ne liggéey guddi la ñuy def su bëccëgee ñu wut couverture foo xamante ne nekk fa la ñuy yenn xam nga fu ñu yendu mën fa mottali liggéey ba waaw kay Mohamed Lamine daal waxtu wi dab nañu te xam nga ne suñu rubrique baaxu maam war nañ ko seetaan te maa ngi invité tamit madame Ndiaye mi nga xam ne agence la yore ci affaire personnel de maison yi kon tàggool ñu dem seetaan rubrique baaxu maam salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bégee waaw waaw mais couleur yi nga kati création yaa booy yaa booy gis na man ak yow ni ñu génnee ak tey say sa papa dama génn ak moom ah sa papa tey góor gi tey dama génn ak yow de. tey sa papa daf la jox mauve man ma jox la orange. gis nga kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. <laughs> waaleykum bége rebége. maa ngi leen di ziare di leen sant bu baax a baax. di leen wax ni fi ngeen ko jàpp foofu la bu leen tegg seen tànk. ndax lu tax thème bi moom. Uh-huh. yaakaar naa ni mun na dem deux semaines. parce que di nga bu ngeen génnee tey dina am yeneen. yeneen yoo xamante ni dina génn waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di gërëm nag ki nga xam ne moom a teral nag wax dëgg yàlla ah. kontaan nañu kontaan nañu kati création <laughs> maa ngi ziar yàlla sax macha allah fatabakala ñuy def pose bu ndaw ndaw rek dem ba tamit ba Tiwaawan fekk fa jëyna ba Kébé ak waa Tiwaawan ñëpp ñu ngi seetaan nee nañu amuñu benn benn benn programme kooku yàgg na ci moom jëyna ba waa ba Kébé waa Kër baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di sargal hmm. depuis Tiwaawan ñu dem léegi dellu si ci kàttanu yàlla